lool ab sëriñam ba sopp ko fu mu tolli wane ngëm-gëmam cofee la ab suufi bam fees del wurus lu dul wurusit boo ko na teg moom mu yees ko coon bëgg sopp ak lu be coolan ko def waaw ci yow coon waaye jëf jii ngeen fekk fii ci kër Soxna Bambi jëfi cofeel yu taalibe yi yëkkati jëmee ko ci sunu sang bi sunu sëriñ bi sunu yaakaar yaakaari teeg ëllëg di soxnay Aida Saliou ndax sëriñ Saliou moo jàngal sin beccu ne ko kat joxe xarum tabaski cib taalibe cib sëriñam du ndigal waaye nag cofeel la ab taalibe bu bëgg ab sëriñam bu tabaski jotee mu yëkkati am xar jox ko ko màndargaal ci ak cofeelam daa bokk nag ci ak taalibe sëriñ Tuubaa moo ni woon soo amee sëriñ bu mat ab sëriñ ba jébbal ko sa bopp ba mu nangul la ñaari tànk ngay doxe tànk bu njëkk bi mooy lum la digal nga def wa wattabih li muraadihi wa dah kullama min xabla kunta tusaanihu waaye tànkum ñaareel bi nag mooy taxaw temm ci dab mbégam di dab bànneexam di ko mandargaale ci jëfi cofeel faqum fi hawaahu wattabih li muraadihi mandargaal jëfi cofeel nag moo indi jëf ji taalibi yii nga xam ni ñoom la sëriñ Béthio tànn doyloo sunu sang bu tedd bii di soxna Aïda Saliou wóolu ko jël ko jébbal nu ko nu yaakaar ko addina ak alaxira mu doon jëf joo xam ni taalibe bu nekk ndaka jëkk daa nga ko woo di ko jëflanteeg Sëñ Béthio ñenn ñi nga xam ne jotuñ ci wan caa yegg it amoon nañu yéene ja ndaka jëkk di ca dox waaye nag Serigne Touba tànkam tànki kanam rek la amul tànk ginnaaw Serigne Béthio la Serigne Saliou ne ko sa mbir daa lëkkaloo mbirum Serigne Touba li fi ak mbirum Serigne Touba ngi dem sa mbir di dem kon kanam kanam rek la lii fi xew nag mësuñu fee yegg mësu fee xew waaye day wane tànk kanamu Serigne Béthio yi Serigne Béthio amul dendandoo ndax mbooleem taalibe yi soxna Aida Saliou yi moo xam yi nekk ci biir réew mii la moo xam yi nekk bitim réew la tàmbalee ko ci buntam yii di soxna Batoor Saliou Thioune ak mbooleem taalibe yi nga xam ne boole na leen ak moom ñu tuppe leen Daaru Salaam Touba Kër Serigne Touba ak mbooleem taalibe yi nga xam ni ñoo ànd ak soxna Adja Saliou Thioune tam boole leen ak moom ñu duppe leen Daaru Salaam kom moo xam ñu nekk ci biir réew mi la moo xam ñu nekk ci bitim réew la kenn ku ci nekk mandargaal sa cofeel sa digganteek soxna Aida Saliou jaarale ko ci ñoom ñu àndandoo ñoo jébbal ko ko waaye yemu fa mbooleem amiram yi mbooleem taalibeem yi nekk ci réew mi ak bitim réew ñu leen di wooyee waa Salaam te mu boole moom ñëpp nag ndax boo boolee Xelkom ak Touba Kër Serigne ak Daaru Salaam ñëpp taalibe yi soxna Aida Saliou lanu waaye loolu yi organisation la mbooleem taalibe yooyu yëpp nag ci biir réew mii ak bitim réew mbooleem amiram yi mbooleem cantaakoonam yi kenn ku ci nekk yëkkati sam xar jébbal ko ko daa tàmbali nag lii gétt yi tàmbali la waaye àggagut ndax taalibe bu ci nekk fii mu ne la nekk sab xol mooy wut kuy ma gën a rafet indil ko ko moom soxna Aida Saliou ngeen mandargaal sa cofeel loola tax ngeen gis kër gi fees na xaat te gaa yu noppeegunu fii jëf ji agsi nag jëf ji musu fee agsi bi nu tàmbalee ak léegi tey jii gàccal na lu fi mus a jaar ndax fii nu toll kenn mënta wàññi lim bi fi nekk waaye rafetaayu xar yi taar bi xar moo ci xool da ngay xam ne cofeel la ko ab taalibe jëfee te liñ fi indi lépp xeeb na ne ko ngir mënta dab sunu sunu sunu diggante ak sunu sang bu tedd bii loolu nag mooy jëfi taalibe yi soxna Ayda ni gërëm na taalibeem yëpp te sant leen bàyyiwut kenn nag buntam yii di soxna Batoor Saliou Thioune taxawaayam ak mboolem taalibe yi mu ko booleel gis na ko te it bég na ci sant na leen gërëm na leen di leen ñaana seen xéewal yokk waaye mbooleem taalibe yi nga xam ne boole na leen ak soxna Adja Saliou Thioune mii nee na moo ngi gërëm soxna Adja ak taalibe yi mu ko booleel yëpp ndax seenub taxawaay ci jëf jii ràññiku na rafet na te def nañ ko ak yéene xolam sedd na ci guy bég na ci te moo ngi leen di ñaanal nu yokk te ko man waaye mbooleem taalibe yi boppam yëpp itam yi ne wooye waa waa Daaru Salaam muy ci biir réew mi muy ci bitim réew bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen kenn ku ci nekk pësteef bi nga ci def yéene ji nga ci def tiofel ji nga ci wane tegee ci beutam xolam set na ci te mo ngi ci sante di len ñaan li tam seen xewal yok waye mbollem way yeesal gi yeb moy daru salam madabul fawzayni nuuru daarayni soxna Aida Saliou nee na xolam set na lol ci taxaway bi nu def ci tebeski gi ndax kat da wote won magal afa tebeski ta batay mo ngi ci talibe yi wuyse ko ci nuñ ko ci musta wuyse fi nu tole fi nu tole ci magal gi mësuñu fa yegg te pareegunu talibe bu nek li nek ci xolam moy matal magal gi bala ñoo yegg ci tebeski gi te lol la taxaw te pëstéef boobu yi nu ko wan ci màggal googu mu woote avant tabaski pëstéef boobu yi daa yàqu dara ci cofeel gi nu ko wan ci tabaski gi nee na nag loolu xamalaat na ko ni sunu xol yi dara nekkuti lu jëmmi seen becco waaye sunu xol yi moom rek a ci nekk ndamam ak sagam rek la nuy wut moo tax gërëm na ñëpp sant na ñëpp xolam sedd na ci ñëpp te moo ngi ñaanal ñëpp ñu gën a jekku ndigal gën a jekku liggéeyu seen becco bii nee na nag moo ngi sant sëriñ becco di ko mm. moo ngi sant sëriñ becco moo ngi sant sëriñ becco di ko moomalewaat boppam di ko jibbalaat boppam boromam bi sangam bi léppam sëriñ becc mi nga xam ni moo ko def ni mu mel sëriñ becc mi nga xam ni moo ko def lim doon sëriñ becc mi nga ni nga xam ne lu mu mel mooma seriñ becc mi nga xam ne lu mu am mooma sëriñ becc mi nga xam ne buñ ko dee tudd mooma sëriñ becc mi nga xam ne lii lépp mooma moom nee na cantam googi moo ngi ko joyelaat di séeréel adduna ni moo ngi sant sëriñ becc boromam bi waaye noo ngi séeréel adduna itam nun ne noo ngi koy sant noo ngi sant soxna Aida Saliou noo ngi sant Serigne Béthio ci jëmmi soxna Aida Saliou mii munu booleel soxna Aida Saliou sagal nanu ndamal nanu na ku gis jëf jii te Serigne Béthio nekk ci sa xol am nga sag am nga ndam Serigne buy faatu mënut lii te Serigne Béthio kat buñ mënee taxaw ci kanamu àddina ñun sunu Serigne du faatu teyam dina gàccal na démbam samba muy faatu du man ginnaawam man kanamam waaye ku ànd ku dul faatu suñ demee ba ne làqu na kanamam mooy man la woon soxna Aida mii a tax nu xam ne sunu Serigne bi du koy faatu nun soxna Aida mii sagal soxna Aida danoo soxna da ñoo ngi séeréel addina ni ñoo ngi ñoo ngi yeesalaat sunu njëbbal ci moom jëbbalaat nan la sunu bopp nun mbooleem taalibe yeesal gi yëpp mat la bu foo sa nóoru daal ni sa taalibe yi yeesalaat nan seenu njëbbal ci yow ñoo ngi yeesalaat sunu cofeel ci yow ñoo ngi yeesalaat sunu yaakaar ci yow ñoo ngi lay joxaat sunu bopp di la joxaat sunu nopp di la joxaat sunu xol te di la diglu rek tey sàkku sa ndimbal nag fu nu toll ñoo ngi lay bégee nag barke sëriñ Bekko nun sa mm. taalibe yëpp ñoo ngi lay bégee yàlla nga fi yàgg te wér waaw waaw soxna ay da sono sak tax tay waaw waaw soxna ay da yaay sono sak tax tay soxna ay da mooy sunu sak waaw waaw way wi yaa ko yelloo ndeysaan ay waay waaw kay waaw waaw soxna ay da yaay sunu sak waaw waaw jallo jeeri mooy sunu sak jallo jeeri mooy sunu sak waaw waaw jallo jeeri mooy sunu sak waaw waaw na ay yaay sunu sak waaw waaw soxna Ayda yaay sunu sak tax nga tey sunu waaw waaw way wi yaa ko yen loo wayal ndeysaan wayal ay waay wayal waay wayal